mais dans les conditions là wiin wogano fi kam ala an minute est ce que conserve arbitre ke o lamtade mais effectivement lamtade juge ke dabama den dab arbitre fe laadin kam goro ɓeno dembaƴ non wo jega droit arbitre arbitre central fe baat na la. baat na la Doudou. booy sama rakk la. du ma si jox moom affaire laabu. mais yéen li ngeen di gis moom. décidé nañ ko mais day fekk ngeen ànd ci yéen bëri. bu ngeen ci ànd ñu seeti beneen voie. Doudou. beneen voie. il faut qu'il soit d'accord. Doudou. Il a posé une question, on l'écoute. C'est bon. Il a, il a mais man booy yi vraiment jaaxal rek quoi. liggéey rek mënoo fexe ba du duñ ñëw. liggéey rek yéen kay mënoo ngeen war a non non booy yi tax may yow. Non, non, amul vainqueur, amul vainqueur, c'est la même chose. Ça y est. On est là-bas. Adja Bir. Adja. Adja. Adja, ok. Moussa, décourage, décourage. Bam dangan. Lo def da nga départager. da ngaa di partage si digg bi dama bëgg nga tontu ma. lu leer laa bëgg. waaw loolu lañ ko def ku ne 400000. ku ne 400000. kon baax na. kii a euh, le vainqueur vainqueur ki la woon 500. waaw vaincu 300. waaw. bu ñu defee nit ñi ko def partage 400 400. 400 kon ok. kon wasalaam jaa jëf. Mayib tey salaam ji daa mel daa soxla tàng de Mayib yaa fi yaa fi nekk laa Mayib di nga wax. yaa fi ji de arbitre di laax tey sa lamb bi daa mel dafa tàng dafa saf de. tàng na jër. waaw mais lan moo nekkoon problème si finaal bi non non non arbitre bi nu mu tëddi problème mu joxe avertissement ah boo dem ba mu gi ñu tas lamb ji noonu départagé. sa dafa am dafa loo xam ne mënu ma la koy leeral xam nga ni situation bi demee. Mhm. maa ngi si table bi. di mhm. combat bi commencé ñëpp daw. du wër géew bi gisatoo gisatuma moo tax mënu ma la cee wax lu leer. maa jékki-jékki ñu woo ma. combat bi dafa am problème j'ai constaté voilà nit ñi dugg si biir donc euh, vraiment mënuma ci avancer quoi. loolu la daal. kon ba ngeen ba ngeen waxtaan ba pare. ok jërëjëf ngeen jëf sama gaay yaa ngi ni les arbitres dañoo réeroon ku nekk di xol sa morom xamatuñ fi jëm ay waay waay lii ba ba ba ba Yeah. Thank you.